massawu sénégalais yi nga xamné ñi ngi dund jamono ji euh, mbënd mi nga xamné euh wacc na fi fi ci fi ci Sénégal donc di leen euh di wax ne euh, ñi ngi bokk ñom métit bi euh, di bokk ñom nakar wi te lépp loo xam suñu kéemtulaay la dinañ ko def ngir nguur gi fullaal

approche bi nga xam ne moom moo gënoon ci jamono ji nii euh, parce que ni koo xam ne dafa nekk ci ndox ñàkk lépp loo xam ne matériel la mm-hmm. nga ne dinaa dafa ko sax évaluation pour xam euh, ñi nga xam ne Dakar ñaata lañ ñi nekk ci région yi ñaata lañ euh, daal dina rek dinaa génne lu toll ci 3 milliards ne dama nañ ko jébbal lii ma joxe ko ci wàllu ay ay cash money xamuñu également montant yi ñaata la lii également nga ne naa ko joxe ci ndimbal jàpp nañ ne sénégalais ils sont assez responsables sénégalais dafa nekk peuple boo xam ne peuple bu digne la peuple bu mature la donc nekkul ne saa bu ñu amee jafe-jafe rek li ñuy soxla moom mooy lekk wala ceeb wala leneen ndaxte état bi moo am obligation mettre les conditions yi nga xam sénégalais yi dañ mën demal seen bopp defal seen bopp mais boo amee benn gàllankoor boo xam ne sénégalais yi dem dëkk tere sénégalais yi terrain sénégalais am lu ñu suturloo je pense que nguur gi moo war taxaw def autocritique xol politique bi mi doxal lan mo ci bax mu mu mu mu gën ci gor gorlu lan mo ci bonne mu jëm ko bay parce que zone yi nga xam ne jot nañu dégg ñu inondé yépp ñu su bari tàmm nañ di inondé donc problème moy mooy lu tax ndox bi fa nek ba légui ak montant bi nga xam jot nañu jot nañu wax ne dugal nañ ko ci te nañ ci ñu tout à l'heure mu mel ne Pikine nga dem également Guédiawaye euh, nga dem également lu mel à ay ay ay ay ay ay ay ay Kër Massar euh, nekk na loo xam ne nañu nekk na suñu ginnaaw naam parce que am na ci yenn endroit yoo ne fa mais buñ ko taxas ci benn côté bàyyi également yeneen côté yi buñ ko taxas également biir Dakar boo yàgg nañ wax ne Sénégal rek du Dakar Sénégal rek du Dakar. donc bu ñu dee def politique d' assainissement dafa war a nekk politique d' assainissement d' assainissement yoo xam ne c' est au niveau national ba nga xam ne Sénégal yëpp dina ci gis seen bopp. liñ ne dugal nañ ko ci xaalis en ci terrain bi wanewu ko ci ci terrain bi wanewu ko te balaa ngay ñëwaat nga ne da ngay dugal xaalis toll ci dix milliards pour pour jéem a euh, euh, dimbali askan wi. D'abord, ce que nga jot fait, nous ci évalué nga 2012 2022 war nga ci 750 milliards nii ne 767 milliards Nous avons ne bi nga sa constitution Le président rapide moo ko dugal bi nga dugalee ne jox pouvoir assemblée nationale pour faire def évaluation parce que l'Assemblée nationale a un pouvoir d'évaluation prérogative bi nga également mettre au sein de la présidence une commission boo xam commission d'évaluation la dirigée par l'ancien également ministre monsieur Sall Ibrahim Sall bu bu bi nga également am nga lu mel coup des comptes possibilité pour l'évaluation. Nous nga également yeneen structure yoo xam def évaluation diggante 2012 ba 2020 wax ma 2022 japon n'a ne kat gouvernement bi waroon na taxaw ne kat xaalis bi kat lii lañ ci dugal nii lañ joxee marché yi nii lañ defee compétition bu compétition amee ñu wax ñu bu compétition amul amul ñu wax ñu entreprise yi nañ jox également marché yi li lañ ci jotté liggéey est-ce lan moy taux d'exécution li nga xamné ne euh, nañ ko prévoir nañ ko won lan moy taux d'exécution bi taux d'exécution physique mais également taux d'exécution financière est-ce que xaalis bi nga xamné waxoon na dañ ko ci dugal est-ce que lepp dugal nañ ko ci ouvrage yi nga xamne ne ñu concerné ouvrage non. noonu bi nga déterminer sa cahier de charge déterminer sa spécification technique est-ce que entreprise respecte respecté nañ kay euh, spécification technique yi est-ce que li fa dem ci ay PVC est-ce que li fa dem ci ay tuyaux dem na fa ba nga xamne ndox bu ñëwee dootul am ben problème jàpp nañu président de la République wax na ko moo di askan wi ñoo fautif

duñ ko jël xëpp ko population bi mais représentante bu amee ñi nga xam ne ñu joxe këyit ñi nga xam ne ñoo def seen lotissement te amul assainissement bu baax ñooñu le président wala président de la république tourné jàkkaarloo ñoom wax ak ñoom ne leen yéen ñi li ngeen def ni foo leen ko teg ak lu tax ngeen def ko loolu mooy loolu mooy responsabilité pour man. beneen bi mooy président dafa ne changement climatique changement climatique bi ñu koy wax ça fait des années ñu ngi koy wax dans le monde de façon générale mais dëkk yi nga xam ne ils sont alertes dëkk yi nga xam ne respecté nañ jëmmal nañ li ñuy wax prévention dë dëkk yi nga xam ne jëmmal nañ li ñuy wax euh, euh, euh, risque risque seen dëkk parce que ñu yàgg nañ ko wax lu mel direction de la protection civile waratul nekk ministère de l'intérieur yàgg nañ ko wax donc dëkk yi nga xam ne ils sont alertes bu leen seen structure étatique alerté ANACIM def na alerte bu yàgg daal dina dañ am taw bu bari waaw bi bi ANACIM alerté yan Diego le gouvernement bi jël ludul di def ay cour ay courage yu mel ONAS ay courage euh, manuel moy ni nga romb fi ñuy def ni di xëcc di xëcc bu len ne buñ ne la taw war na am te war na am ci volume taw bi ni. est-ce que ce courage manuel manuel yooyu nga doon def depuis des années depuis des des des des des années quatre-vingt-dix ba légui est-ce que les quatre-vingt-dix quatre-vingt-dix ko créé quatre-vingt-seize et cetera est-ce que war nga utiliser jumtuwaay yoy ba légui donc fayit bi nekul ne que changement climatique amna mais fayit bi fi nek moy bi nga xamné ne structure alerte nañ yan jumtuwaay la état bi jël Bim, ko jëlee également ñan la jox marché yi parce que dafa jot tey ñu top au niveau de l'ONAS ONAS ministère de de l'assainissement ministère du chargé hydraulique il faut que tay ci ni ñom ñu rendre compte te te waxuma ministère bi kessé ministère yi nga xamné dañ fi depuis euh, euh, plan décennal bi ba légui képp ko xam da nga laaloon ci également ci wal assainissement da war rendre compte bu luy amee ñun doon xaar assemblée nationale taxawaay taxaw taxawaayu représentant du peuple mooy peuple bi am na jafe-jafe doo xaar rek campagne doo xaar rek foo ko soxlaa nga dem fekk ji ko mais boo amee jafe-jafe waxuma individuellement encore une fois que député yi dem individuellement di pàccax pàccax ci ndox mi waxuma ma loolu de institution bi laay wax li mu war a def mooy mettre en place non seulement bu dee def commission na def commission mais woo ministère ministre nga xamné depuis 2012 depuis ñu ñu le plan décennal Ministère ministre fi jaar yépp autorités yi directeur nga xamné chargé assainissement yépp war nañ té assemblée nationale déglu leen ñu leen bi ngeen ngeen ko la dem bi béréb bi bi démé ci béréb bi yan entreprise ngeen ko jox entreprise yi spécification technique nga leen wax est-ce que saytu ngeen après par audit technique pour xam ndax li ngeen tëggoon def nañ ko fa ñun loolu lañ assemblée nationale Mais assemblée nationale boo xam ne dafay teewal askan bi mais pas assemblée nationale boo xam ne dafay xaar président joxe ordre pour mu agir loolu nekkul assemblée nationale. donc li nga xam ne également moom moo euh, euh, euh, président de la assemblée nationale moo concerne également président de la de la de la de la la république parce que également boo jiitee c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation nga on que cette politique de protection des populations par rapport aux inondations je pense également que mettre en place une commission d'évaluation du président de la République dirigée par un ancien ministre je pense que le président de la République également avoir une évaluation pour Yang. mais nga xaar ba rom ngay watat un gouvernement stratège de doxalee xam nga opposition wala pouvoir bu wekk askanam duñu ñu nekk ci yenn jafe-jafe nekk ci wàllu nekk di dund pauvreté di dund instabilité di dund insécurité di dund indépendance euh, euh, euh, défaut d'indépendance de la justice di dund problème d'accès à l'information di dund wàllu wàllu luubal sunu alal ay groupe daje di waxtaan ay chef opposition loolu maanaam ku sa xel màcc ci dëgg ku sa xel màcc ci jom ku sa xel màcc ci fula waroo sax di toog ci table boo xam ne day wax waxu statut de l'opposition amul benn njëriñ pour askan bi te loolu dañ ci interpeller non seulement le gouvernement interpeller ci également opposition bi nga xam ne également mi ngi ci biir commission politique bi c'est-à-dire que am na loo xam ne tey bu rusul tocc buñ la tey askan wi dañoo son sonn boo xam ne yow ngay xeex tout le temps pour que askan mi am ay xaalis ressources yo xamné ne mën na leen permettre ñu génne jafé jafé ju nekk yow nga na def statut de l'opposition pour lan wala na def statut du chef de l'opposition il ne parle même pas du statut de l'opposition mais na def statut du chef de l'opposition pour lan jox ko avantage jox ko xaalis pour lan lan la défar askan mi ba war ko mëna jox xaalis bo xamné tay ji ni askan mi seen bopp ñoko ñom ñoko soxla 2 ko yo xamné amul njëriñ pour askan wi amul également euh, euh, euh, population population population sénégalaise amul amul dire njëriñ nous ñun dañ né amna ci question yo question am solo ci dialogue national bi la de façon générale parce que bu né dialogue bi rek dañ japp commission politique bi nga ñom politique rek te bu bonne politique bi sax mais politique détail de détail bi ñu discuter loolu que yeneen commission yu nek ci dialogue national bi mais def liggéey am solo commission euh, ressources naturelles elle fa ana conclusion commission modernisation de l'administration contre la corruption elle a fa ana conclusion commission paix sécurité elle a fa ana conclusion mais elle a dit ñu def sen complot Elle travaux yi nga xamné ay nit def ko dépenser également cette énergie dépenser en xaalis nous wax également ngir askan wi mais rek ñu jël benn lu ñàkk fayda loo xam ne tey jii nii war nañ ko rus di ko également ci ci kanam Sénégal yi lan statut de chef de l'opposition et loolu encore une fois dañ ciy interpeller ñi nekk ci biir commission politique bi yépp mu nekk opposition mu nekk mu nekk mu nekk également mu nekk également pouvoir du yoon ak Sénégal jafe-jafe yi nous toll également eh, problème statut de l'opposition xam nga waxoon nañ ci ne ministre de la justice war na ci àddu pour que sénégalais xam dëgg bi fan la féete ndax li nga xam ne moom la euh, le juge Yaya Amadou Dia teg ci deru le juge Ousmane Kane te intérêt, c'est askan wi parce que ñu ci tudd wàllu corruption ñu ci tudd tudd wàllu wàllu trafic d'influence, influence sax maanaam nit koo xam ne tey position am tax na mu dem libéré nit te monsieur Ousmane Kane le juge Ousmane Kane manque de également une interview mu nekk lu graaw mu ne moom moo sol robbam dem génne ji ki nga xam ne dañ ko tojoon mu nekk lu graaw a graaw a graaw a graaw tey possibilité de sol sa di sol sa robb dem di génne nit nekk na lu graaw a graaw te loolu ñu ñu dégg mu dégg mu wax ko donc ñu ne ñun enquête bi nga xam le ministre de la justice jotoon na ko jotoon na ko déclenché enquête Bobo, le forum du civil de laaj fan la toll parce que ah, mbiru ñaar nit la loolu ça se règle en 24 heures maximum en 48 heures ou 72 heures manam dossier bi waroon na donc tay jii nii nañ xam accusation yoy non ci bir magistrature bi naka la demee parce que askan wi également buñ leen sen seen kay ba ku ku am sa problème rek dal di yëkëti bëgg bëgg également après ñu ñu faté ko loolu warul nekk te warul warul am benen bi moy dafa am lo xamné ne tey dafa nekk ci bir magistrature mu nekk lu grave grave te nit ñi bàyyiwuñ ci xel nit ñi di bay bayal nit ñi daf mel comprendre luñ ko mooy li nga xam ne ko âge de la retraite à 68 ans gis nga loolu dafay tënk yenn magistrat parce que boo demee ci statut de magistrat la loi 2017 bin ñu voter. voté article 65 dafa alinéa 1 que magistrat yi magistrat par principe magistrat par principe nous ngi dem retraite ci amé 65 ans soixante cinq ans a deux bi y a ne magistrat yenn magistrat premier président les premiers les premiers présidents ñi nga xamné ñoo également chambre d'accusation cour suprême wala ñu il également ñi cour d'appel mu cité ay magistrat mu a deux retraite ci buñ 68 ans déglu magistrat par principe nous ngi dem retraite 65 ans Mais ñu sommes magistrat yi n'est c'est pas n'importe quel magistrat Les yi ont une possibilité de casser les décisions. magistrat yi ont am doole ci de magistrature bi ñu magistrat premier président yi patron patron la juridiction yi ñu cour suprême nous sommes cour suprême Nous ne ñii retraite ñu 68 ko 68 ans seetul Vous bu fekkente man un la là. 64 ans ñu même ma ci benn poste premier président mam fa 65 ans normalement war naa dem retraite mais loi def na la yow mii comme nommé nañ la fii doo dem nga retraite da ngay bàyyi ba 68 ans léegi ma am 65 ans imagine toi président de la République bi mu fa nommé sama 66e année président de la République jël décret. ne la non nekkatoo fa de jigéen jëlee naa fa bu la fa jëlee nga dem retraite c'est-à-dire que la fa rek moo dem nga rek donc magistrat bi nga xam ne tey jii nii ngi mi ngi bénéficié trois ans yi toogul toogin boo xam ne toogin bu dëgër la dafa toog ci toogu influence influence loi parce que loi bi mën na ko xaaral nag maa ngi xaar ba nga def dara ba président jël décret bu jëlee décret rek nga fay jógee. donc amul possibilité yëngu. amul possibilité yëngu loolu benn fànna la. pour waaye le travail gravaayu loi bi mooy ñi nga xam ne tey jii nii dañoo am 65 ans am nekk ci poste yi nga xam dañ leen 68 ans ngeen dem ngeen dem retraite ñooñu loi bi daf leen tënk président de texte laay wax de décret président de leen téye maanaam ils sont suspendus ci décision président de la République c'est-à-dire que yëngu nañ def nañ loo xam ne peut-être neexul président rek mu jëlee leen par décret bu leen jëlee rek ñu retraite subit comme ni comme ni comme ni ni ni ni ni ni match football un goal subit

ñen ñi nga xamné ne dañu la nommé ci yeen poste yi nga xamné bo amé 68 ans dem retraite lool moy grawaay loi bi loi bi euh, article article 65 alinéa 2 bi dafa tënk sa yi nga xamné dañu nekk ci poste yi nga xamné ne dañ ne ku fa nekk bo fa amé 68 ans rek ngay dem retraite wa ñooñu tay ci nii ban poste ban ban textuellement la wax dé bu ñu analyser ban indépendance la wara am digënté ak président de la république bu fekkente ne woon tey ñoom soxlawuñu tey à 68 ans de retraite nous ñoo war a njëkk a xeex président de la République Nous, on veut indépendant on veut rester dans la magistrature il y a d'autres jeunes qui sont venus ñi ngi ñëw ñii fonction bi également ñi ngi jàng pour bëgg nekk magistrat donc waroo rek du beral 68 ans bàyyi ñi nga xam ne ñi ngi nekk suuf am compétence di liggéey di war retraite à 65 ans muy indi pëccëxoo ci biir ci la magistrature donc l'article 65 boobu noonu

pour que égalité am ci biir magistrature bu bañ am discrimination te loolu interpeller tous les anciens magistrats parce que nous xam nañ danger gravité gravité gravité ba euh, euh, euh, article 65 boobu noonu xam nañ danger article 65 boobu ci démocratie xam nañ danger également ci la société xam nañ danger également ci fonctionnement de la justice donc loolu waruñ ko seetaan muy nekk ci biir ma ci biir magistrature bi jaaduwul te waruñ ko waruñ ko waruñ ko waruñ ko waruñ merci beaucoup.